nekk di dee mu ne ma dëgg la ma ne lii de kii la nekkee la ndax nekkee waaw mooy jombos dama nekk si taatu mbaal di dox dox ci kaw di law di law loolu def ci mbuum mu ne ko mu ne ma dee dëgg la wala mu ne ma lii ci baaru dëru bay la mu xam ne lépp dafa dee mu ne ma lii lépp dafa dee dama soo naatu na lay walaay kon moo tax ñu lépp diine ñu bëgg ko nga xam ne jekk am solo lay walaay nga loolu yëpp xam naa loolu ñëpp xam franchement mën naa wax ay wolof yàgg mais. loolu ñëpp xam on te on te remercie du fond du cœur. au nom de toute la famille. j'ai appelé Wally parce que quand une personne fait des choses comme ça. il faut nga wax nit ñi def lu baax. bu la defalee moom mën na koo bañ a wax waaye yow ni mu ko amal naa ko war a wax ndax teraanga dañ koy wax. dëgg la dara ki ne ci wet bi xamul luy teraanga bu ko gisee mën koo roy. fi mu jógee yàlla na yàlla si yéene ba nga amoon yàlla na yàlla fay yéene ba. fay jéego yi nga jël dox ko dem commande même bu dee appel boo jël crédit ba nga ko yàq yàlla na ko yàlla fay. pas boo ci teg yàlla na ko suñu borom delloo si ñun moom lañ am ñun mooy sama xarit sama kuréel ah. mooy sama suuf. salimata biyo ñamana ko teram sali ko gay wali bu tey kay la bu yàlla bëgg na teral ay maasam ci yaayam la instant bi lan la ñu war a def jàmm donc may ñu jàmm pour gunge ko neexalal ko parce que magal ne dafa métti xool di xool njaboot yow ngay magal nga gis ñu ngi màgg doo xam ñaata tàngal fi yàlla nar a bàyyi ma xool loolu dafa métti léegi nag foofu nar a teg benn pression man dama lay rey waaw comprendre li nga def nii sa bopp ko defal da nga ko defal ki ko war a da nga ko defal kii suñu ko je je pense que ci man ci sama conception li ñuy souffrir li mu daj instant bi lan la ñu war a def dimbee ko a ko sa que magal ne dafa dafa métti xool di xool njaboot yow ngay magal nga gis ñu ngi màgg doo xam ñaata tàngal fi yàlla nar a bàyyi la xool loolu dafa métti léegi nag foofu nar a def benn li nga def ni sa bopp ko defal ko defal